Samb kii na génn kër gi. war na fàttali ko nga jàpp ton. defe nañ defe nañ sa feneen sa temps ton. oui ma maa ngi leen avertir ne xaw ma day génn xaw ma maa ngi dem ci commissaire Tendeng. ah dinaa ko tëj de sama. ah oui boo ko defee saa loolu seen diggante lu leer laa la wax. te yow ma tekki ma sa te yow mille mois d' allocation nga wax. ma tee ma xamal. xamal booy. ñaari fan laa la may nga ne mottu génn kër gi. ko ñëw dégg nga wolof. léegi laa génn. te yow kon yow da ngay wax wolof. dégg nga wolof. yow olof la yow. wala dégg naa tuuti rek xam. ah chambre dégg nga bu ko commissaire jël see du ma fay. balaa muy fay ñaari fan nañu fay suñu xaalis yaas eh, kii. li nga doon defal ci defee ton yi fay. waaw waaw xam xam nga lan laa bëgg waaw léegi déglu man ñii comprendre naa la yow. naan di tëj kay. waaw la kay. dañ lay sax 6 mois de location ba fay. Ah. waaw bu ne wii. ci sutura rek kenn am na xaalis ma doon hmm. am na ñu ma denc. alors loolu. nga ne la ñaata laa leen di jox kay. 6 mois. 6 mois dugg rek ñu déglu lépp dañ ne nga bu ñëwee ñu ni ko nga déggaat ba nga ne nga déggoon. bu ñëwee ñu ni ko boos boobu mooy 4. reewal. dangay fii taxaw. Eh, qu'est-ce que danga réew laa mën a def. am laa wax a réew laa wax man. danga réew maa ne danga réew. ok mooy sax dama xaar lu doo xam fay taxaw xanaa yow sa ah, ah, fa. Ah. kii amoo looy wax ak moom. kii nga war a waxal. nga normal. et puis je vais faire le constat. da nga réew nga naan lii je vais faire le bu ñu sa morom. bu ñu fontoo merci beaucoup bu ñu waaye li ngeen vous êtes. ñu naan ay derrière chaque grand homme il y a toujours une grande dame yow bokkoo ci. Ah, yow tekki woo dara. ah lan nga wax. madame la voilà. heureusement soo inspecteur Madiara ñu ngi ñu ngi woon fii. mais yow bu la woon wax inspecteur Madiara inspecteur Madiara. inspecteur instant Koli. yow. lan mooy problème bi. kii moo doon saaga. non kan moo saaga kii yow mën na woon teel a wax de kii procureur. waaye yaa saaga. yaa mën a teel a waaye waxu yaa ko jàppale nga naan mën a. déglu rek déglu. waxu dafa maa teelu la wax procureur bi baal ma waxuñu ma ko woon de. xaw ma woon ne procureur nga. waaw waaw yow kaay bu la ko teel a ma taw. bu ma la koy waxee danga nekk fii di saa rek. kaay fii bul taw. waaw waaw. yow yaay kan. maam Cheikh Ibra Fall. ah huissier à retraite. lan huissier à retraite. huissier à retraite. lan huissier. ban commissaire yaa nga nekk. kan mooy huissier à retraite. ah non kii xam nga muy def. yow doo policier. laaj ko ay papiers am chef. génn say papiers génn papiers yi. yéen infraction rek ngeen def ci dëkk infraction bu rëy ngeen nekkee yéen ngeen wax ak procureur doyatu ànd ak nit koo xamante ne léegi man d'accord léegi man taxawal ah, waxul kenn procureur illégal de la fonction li muy def ni mooy exercice illégal de la fonction embarqué ko wala kii ma ñëw kii ñett at ngi nii ah. muy monter circulation ne policier la kër ga ñu dëkk yow foo jëlee fetal yow yow foo jëlee tenue yow ndeke doo police. yow yow kii kii criminel la. yow yaay imbécile dëgg yaay imbécile. Ah. yow kii saaga procureur. yow de la fonction laay def fu mu toll nii exercice illégal de moom la a moom moo saaga procureur ah. c'est lui qui a njëkk a saaga embarqué embarqué. booy jaay yow man ngay baal ma ah booy jaay yow. waa kii du sama copain. champion ñu yow gisoo ma tey gisuma la kër ga. ah doo ma mën a gis bàyyi àdduna bi du xëy rek toog dangay ngay nekk ci ay tolof tolof di yëngu. waaw mais yow lii lan la. kii ku la koy toggal. kii mbuum la dafa baax maa la ñamal lii mbuum la. mais yow may doo changé quoi yow yow mbuum bi loog mais yow yow laay waxal. eh. eh waaw waaw dama waaw ak man. non maa ngi wax ak yow pour lan la li ngay xool lan la. non lii may xool nii dama koy nam trop. saa waaw waaw dama koy nam xanaa xamoo ay xeeti si ndax ay mboom yaa ngi dégg xam nga Europe ah. Europe ah. yii amu fa ay mbuum amu fa ay jigéen yuy woddu amu fa ay si ndax yi da nga leen di nam kon da dem Europe mais mbañaat dem mbañaat dem la mais xanaa da ngaa dof déggoo li ma seen wecci wax da ngay tukki tukki bee la gën a yitteel wuy ma benn xarit wuy ma waaw gis nga euh, boo paasee marché. marché ba marché bi. waaw booy dem marché. ba par premier raay bi ngay jot doo ko jéggi. <laughs> sëriñ bi moo la dafay fen xam nga Ablaye déglu ma. Ablaye yow non déglu may wax sëriñ boobu lu mu la wax ci kaw ba ci suuf xaw ma weccit xaw ma dafay fen waxul dëgg. du sëriñ xam nga lan la caga. caga maa ko bett mu naan xale bu jigéen bi tàllal sa tànk ma ñaanal la. astafurlah astafurlah xam nga Ablaye saw yow lenn laa lay yëgal mooy. yow da ngaa soxor tëjal ma sa làmmiñ nga dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi non may ma rek ma wax la da wax ma déglu la yaay déglu man damay tukki mbuum dama koy namm si ndax dama koy namm ndax nee nañ ma Europe yii yëpp amu fa yaa ngi dégg ma la ban dëkk nga bëgg dem euh, loolu nag yow concerné wu la ndax yaa ngi may carte demaguma waa boo àggee waaw mbay boo àggee ah président ba na ci dëkk ba waaw nga nuyul ma ko poste courant gi doo ko weesu yow mais bu la laajtee yaag sëriñ baa yem bu la laajtee sa àdd noonu nga nga bëgg jàppee demal yow ci es toujours comme ça waaw yow mi avancé nga ay gaaf waaw yow mi yow mi gaaf foo dugg du nooy c'est que yow yaa wowle mais Ablaye xoolal sa bopp Ablaye doo avancé yow doo dem ci kanam mukk ma naan mat raay doo ko jég yaa dul jéggi raay man may dégg attachez votre ceinture ah prenez votre temps nekk ca jaww ji yow rek maa xam Malick Gaye nee na ma indaaleel mbuum moo fa manqué ba koy indaale ñoom sirax gars yi daal la ñu def ay ay.